lu nekk nañ ay parti yoo xam ni dañoo boycotté manifestation bi man li ma leen dox mooy lend rek buñ la woowee ci concertation da ngay dem soo demee boo d'accordul nga ni d'accorduma boo amee suggestion booy def nga def ko mais kaay leen ñu waxtaan kenn waru ko refuser loolu nag li ko indi mooy problème confiance bi nga xam ne moom moo am il faut que président de la république ak ñi ànd ak moom ak ñi nekk yeneen parti yi ku ci nekk nga def sa kam lay kàttan pour que nit ñi mën a toog ci table pour di waxtaanee problème réew mi que réew mi ñoo ko bokk lu fi am dañ ko war a waxtaan li bon mooy nga yor réew di ko diriger ca doon na ko déglu kenn doon na nga waxtaan ak kenn war ngaa dem. bu fekkee yow am nga xalaat bu gën bañ la woowee nga wax ko bu fekkee am na loolu si war a dolli nga mun ko si dolli loolu mooy li nga xam ne Sénégal war nañ ko di gérer noonu te def bu ñu ko defee dinañ mën a régler problème yi.